moom nag mbiram bis penc la yonent bi daana wax ne ku bëgg a gis bis rek ak na muy demee ëllëg fi àdduna bi tukkee fi ñaari kuréel yi jëlee seen logement ci aljana ñiy dem safara jàngal suratul wax boo koy jàng rek dafa mel ni yaa ngi jàkkaarloog bis penc ñi portale la moo ci gaaw saar wi nag suratul waaqia boroom xam-xam yi ne nañ ku bëri loo koy jàng yàlla dina ubbi sa bunti wërsëg ibnu Mas'ud ba mu demee bay génn àdduna Omar dafa ñëw fekk ko muy bëgg génn àdduna mu ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko kuy dee looy bëggati man bëgguma dara li ma bëgg mënoo ma koo defal a yàlla laa bëgg mu ne ko waxal ndax bëggoo dara ma utal la ko soo génnee àdduna sa doom yi doon ko mu ne sama doom yi eh, ragaluma ci ñoom ak ñàkk jàngal naa leen su a jàngee moo tax te xam naa dañ ko taxoo ta fekk ñu koy taxoo du ñàkk dara tax kon suratul waaqiya baxna ci wërsëg lool waye yow bu ko jang nag ngir wërsëg de jang ko rek ngir jamo ko yalla bu la ci wërsëg dabé nak nga sant yalla soo ko jàngee nag ne man dé dégg na ñu ne sootu waaqiya saaru wërsëg la man dé guddi gu jot ma jang téméré fuk ak ñent tax mo dara ah saar wa nga fam ne woon yow ya néwul fi nga né rek ta su boba saar yu moom dula fekk si léegi ndonga ndongo yi da nga gis ñu bind junney waqiya di ko jaay di sangu rek ta téréwul ñinga ñak muy bay bëgg a kon nak loolu ñoom gaa yi gaa yi moom gaaw nañ ci bind la ay waaqe am pour ne sangoo lii boo ko sangoo ubbeeku takk koy sangu moo a ñàkk bay jaay ay waaqe kon loolu jar naa laaj kon saar waa nga fi mu newoon waaye ñun ñoo ne rek